mu leer na le ne ñoom yemuñu woon ci 12 ans yi nga xamante nii géré nañ ko pouvoir bi ñuy def lu leen neex te li nga xamante ni moo koy gën a fësal pour man di la rapport de la cour des comptes ci wàllu Covid bi mais ma ne ci rapport bi sax waxul lépp am na des pratiques yoo xamante ni fii ci réew mi nguuru président Macky def nañ ko fi. su ñu ko waxoon sénégalais yi ba sénégalais yi yëg ko ñoom ñooy génn ci mbedd yi dem wër yi ña ko def pour jàppale jëflante kook ñoom. kon kon rapport bi génn na am na yeneen yoo xam ne dañ ko nëbb. xam nga Cour de comptes rapport bi mu mujjee génne c'était en 2018 nga xamante ni c'était les exercices 2016 2017 mille quinze ba ñu ko génnee cow li ci am ak malversation yi nga xamante ni sénégalais yi dañ ko cee constaté. naroon na yàqal pouvoir bi élection présidentielle 2019 et ce n'est pas par hasard Macky Sall ba mu jàllee deuxième euh, deuxième tour ba euh, deux euh, deuxième mandat ba mu ne Cour des comptes moom yéen seen rapport yi soxlaatuma te rapport yooyu nga xamante ne nii comment dire def nañu ko ak yi nga xamante ne nii war nañu koo def parce que man dama jàpp ne de la de liggéey bi nga xamante ni cour des mu ngi koy def bu ñu envoyé IGE ci yenn boîte yi ci yenn sociétés yi ak ci yenn maires yi dinañu fi gis loo xamante ne nii mais maara day musi léegi mu nekk ñaar nga xamante ne nii mu nekk ñetti boobu déjà pouvoir buy doog a installé wu. Mm-hmm. ensuite mu fekk fi pour ñoo xamante ne nii amuñu expérience de la gestion étatique. fekk fi nguur goo xamante ne nii daanaka dafa yàq lépp léegi nag nga seetlu ne euh, euh, quelque part malgré dégâts yooyu yëpp nga xamante ni pouvoir bi def na ko fi ñoom dañoo taxaw temm ne nguur gi du ko bàyyi mu doxal comme nu ko xalaatee dañu taxaw temm ne nguur gi du ñu ko bàyyi mu doxal comme nu mu ko xalaatee parce que déjà man je suis persuadé que ñoom suñu defoon loolu par rapport ak résultat yi nga xamante ne nii pouvoiru président Diomaye mun na koo def mun na koo mettre sur la place sur la table parce que nguur Macky Sall nga def lu tane lu ñu doon def mais dafa yomb donc soo gisee koo xamante ni am na volonté wu def lu baax pour nga gis résultat yi du doon lu jafe moo tax ñu taxaw temm ne yu yenn yi nga xamante ne nii pouvoir bu bees bi commencé na koo def sax mais du ñu bàyyi sénégalais yi ñu commenté ci dañuy indi coow guddi indi coow bëccëg de sorte que les question essentielles sénégalais yi duñ ci débat dañuy topp ci suñu rythme ñuy wax loo xamante ni amul benn solo mais dinañu permettre cacophonie bi am benn ampleur boo xamante ne nii du permettre kenn mu dégg lu baax ni pour pouvoir bi di def. genre diversion lañuy def. très bien. te loolu fu ñu ko commencé xaddisi la xam nga dañu jàpp ne peut-être euh, déclaration de politique générale bi moo suscité benn coow ku nekk euh, peut-être ku suivrul actualité Sénégal mën nga xalaat loolu ne kat euh, comment dire le premier ministre Ousmane Sonko moo war a def déclaration de politique général député yaa ngi koy xaar mais nee na du dem mun nga déggee noonu <laughs> comment dire actualité Sénégal. nga jàpp quelque part maa ngi seetaan sax benn télé Togo <laughs> nga man moom temps yi maa ngi ci ga sama ga sous région <laughs> très bien ñuy wax wax yu demee noonu ñuy expliquer comme quoi que ne c'est opposition bi nii la gis comme occasion ba tax ñuy feeña alors que comprendre ñu ko depuis le départ bi nga xamante ne nii le président Bassirou Diomaye fay defagul jëlagul sax euh, service maanaam installé guñu ko mm-hmm. avant boobu ci la critique yu commencé maanaam au lendemain du 24 mars. ñu commencé woon ko sax ci physique am. ba ba Macky Sall di recevoir le président Bassirou Diomaye Ousmane Sonko ànd ak moom loo dégg lan la fay def. waaw foofu lañu ñu commencé critique yi foofu la ñu commencé critique bi Ousmane Sonko lan lan lay lan pourquoi muy ànd ak Bassirou Diomaye Faye di dem pale moom faluñu ko lan la fay def yi ñu jóge ci loolu. wàcc si si tapis rouge bi <laughs> pourquoi muy dox ci wetu tapis rouge bi comme ni nga ko waxee noonu wax nañ fi ay président Bassirou Diomaye nu mu laasee daal yi baaxul. cravate bi daa demee côté. cravate bi <laughs> cravate bi daa demee côté yooyu yëpp c'est des débats yoo xamante ni suli nañ ko fi bi ñu demee ba nga xamante nii pouvoir bu bees euh, comment dire gouvernement bu bees installé nañu ko taxul critique yooyu dakk ñu continuer di appel à candidature bi ñu Ousmane Sonko waxoon mais def ko donc li mu diggante woon ak sénégalais yi amul ba ñu jógee ci ay tapis rouge ay cravate bu weng ci ay euh, appel à candidature la euh, daanu fi. jóge ci appel à candidature yooyu ñëw ci presse bi nga xam ne euh, presse bi ñu ne du ñu fay impo ci débat boobu la ñu jóge wàcc si déclaration de politique générale Ousmane Sonko bi mm. maanaam depuis le début ñoom tooguñu seulement li nga xamante ne nii xëy na moom moo ci xaw a un peu doy waar mooy que les ñi nga xamante ni ñoo war a nekk de vrais opposants mm-hmm. ñi nga xamante ne nii suñu leen déggoon ñuy def des critiques objectives au pouvoir du bett kenn parce que dañuy comprendre que ne ci seen rôle la ñu nekk mais ñooñu jusqu'à présent kenn déggu leen peut-être que Amadou Ba génnee na bu yàggul dara benn communiqué mais jusqu'à présent ñi ngay ñi ngay dégg ñuy wax mooy. Mhm. la presse et média la presse et les médias ñu topp pouvoir bi nag di wax di wax di wax jusque ba fii. Euh, jaa ngeen jëfati bari na ay mbuxum yoo xam ne rek ñi nga xam ne ñoom ñoo di askanu sunu gaal euh, bu leen leeroon te tamit ñu xam ne kii di président Sall daana ko def ci ay jamonoom ñoom seen bopp ñooy jëlal dossier seen bopp pour rek fas yéene daal di lijjanti donte nag sonaloon nañ ko lool sax ci ay jamonoom wante sonal gi sonal gi mooy li ci kaw te muy lennat li nga xam ne rek euh, jot nañ ko daal di nemmeeku mu yennat yi nga xam selon ki nga xam ne rek moom moo di maam Biram Euh, ci analyse yi nga xam ne def na ko niki tey euh, tey ñu àndoon si ak yéen ñu doon ko digloondoo mu nekk loo xam ne rek lu doy waar a doy waar a doy waar la ndaxte tamit bari na si loo xam ne tey rawatina Cour de comptes xam nga tamit sénégalais yi ñu si bari dañuy réere benn mbir te muy lépp loo xam ne ñoom xamuñu ko léeg-léeg mën nañ tey jéem a xuus wante duñ sa am résultat bu baax lan moo tax ndaxte duñ ko xam ñi nga xam ne nag ñoom ñoo xam exact lan moo nekk ci biir mbuxum yi nga xam ne <clears throat> kii di président Sall eh, léeg-léeg eh, daana ko def ak ñenn ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di gàngooram muy ñi mu àndal nekk loo xam ne ay milliards milliards eh, daal dina fay doxe daal di tàbbi comme niñ koy waxee rek saa su nekk ndaxte tamit nit mënuñu laa dénk loo xam ne ñëpp ñoo ko bokk muy loo xam ne askanu Sunugaal ñoom ñoo ko moom nekkul bàyyi ma sàmb moo ko moom nekkul bàyyi ma demba moom moo ko moom en tant que ay sénégalais yoo xam ne tey dañ laa wóolu ba dénk la seen réew ñenn ci ñi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon ci état bi ki nga xam ne moom moo di président Sall peut-être kóolute lay doon wala boog xaritoo lay doon wala book mbokkoo lay doon moo taxoon moom it mu dénk leen yenn ci ay post post yooyu mu leen dénk nag ay milliards wala book ay millions di ca rot te kenn kenn kenn mënu laa wax ne la lii fii nii la jaar loolu dafa rusu lool lool lool sax ci réew mii di Sénégal parce que tamit lu ci mënti xew dañoo jàpp ne yar bi nga xam ne tey sénégal yi dañ koy yar seeni njaboot yaakaar naa waroon na see bokk mooy ñu fexe ba lépp luñ moomul nañ ko yemaleeg seeni dee maanaam ñu fexe ba duñ ko jege duñ ko laal ndaxte loolu teewulaa dund te tamit teewulaa lekk teewulaa naan. ci kaw nag ñi nga xam ne dañoo jàpp ne ñoom fig jëluñu xaalisu jàmbur wala alalu jàmbur wala lu askanu Sénégal moom ñu jaay leen si doole rek ñoom jàpp nañ que ni seen dund dëgg dëgg dëgg dundaguñ ko ñi nga xam ne nag ñoom ñooy def li ni mel si bëree bëri loolu la faral di néemiku ci seen i cas mooy dañuy jéem a saboote wala boog ñu jéem a naqaral ñi nga xam ne ñoom ñooy yi pour wan ne ñoom ñoo féete ki nga xam ne moom moo di état te loolee dafa mel ne jamono bi ñu toll nii daal dinay jeex tàkk kon nag loolu mën nañoo jàpp que ne leçon la leçon bu mag a mag a mag la ci ki nga xam ne moom moo fi nekk jamono bi ñu toll nii muy président Bassirou Diomaye Faye donte la ñu bëree bëri defuñu ko sax mu nekk président parce que Sonko lañ jàpp que ne moom mooy buur di bumi di fal di folli warte nag bu ñu fàtte ne fi mu toll nii moom la sénégalais yi sànnil seenu kar kon nag liñ waroon a lijjanti au début comme ni ko moom Birame waxee mooy alal jooju ñu luubal fan lañ jaar ba luubal ko ak ñi ko luubal ñooy ñan ak naka lañ war a def bañ waat ko donte la ay arrestation gisoon nañ au début muy commencé di jubante loolu nag diggante ay nit la woon mais nag loo xam ne tey état moom moo ko moomoon sénégalais yëpp am ci seen wàll yow nga am si man ma am si ñu xëy un bon di gis ay doomi aadama yoo xam ne tey dañ koy ngardaajoo maanaam dañu buub lépp dajale ko ci seen kanam te fi mu toll nii booy xool day mel ne danga nga naan mujjagul fenn fenn fenn fenn ndax tamit ñenn ñi rawale nañ ko ñenn ñi peut-être lekk nañ ko ba mu rees am si ñoo xam ne moom jamono bii ñu toll nii xalaatuñu koo delloo lu dul ne ay enquête def say tijjeeku ba ñu am lu leer que ne ñoom ñoo jël waaw wala déet. léegi loolu lépp nag bu amee fi mu toll nii nii nii kenn rek lañuy ñuy joxoñ baaraam bi ni ko moo war lijjanti mbir mi tegaat dossier yëpp ci yoon moo xam dossier cour des comptes ak OFNAC nangam nangam yooyu yëpp war nañ koo càmbaraat caytuwaat ko xoolaat ko nemmeeku ko bu baax a baax a ba lépp loo xam ne rek lu moomeelu askanu Sunugaal la ñu fexe ba dal di koy indiwaat te indiwaat googe nag kenn waxul ne dafa nekk loo xam ne lu yomb la parce que liggéeyu fukki at ak ñaar la loo xam ne tey président Sall def na ko moom ak gàngooram kon nag liggéeyu fukki at ak ñaar mënuñoo xëy ci ñaari weer wala ñetti weer ñu ne tey président Bassirou Diomaye fay war naa daal di réglementé waat affaire bi tegaat lépp lépp lépp ci yoon donteel nag ñu ngi si xaar bu baax a baax ndaxte tamit mooy ndeyu mbi gi te ci moom lañ am yaakaar jamono bii ñu toll nii. pour rek fas yéene tàqalikook ndóol gi nga xam ne Sénégal mu ngi ci donte le mi ngi ci aw yoon ñi sànni ay xeer ñi ngi sànni ay xeer ñi topp ci gannaaw di mbaw ñi ngi topp ci gannaaw di mbaw wante ñiy liggéey tamit buñ fàtte ne ñi ngi liggéey te ñun ñooñu ñooñu ëppal solo fu fu fu yoon sax ñi nga xam ne tey peut-être yàq moom moo leen tax a jóg wala boog opposé moom moo leen tax a jóg ndaxte réew mi kat jàpp nañ keneen war nañ kaa mën a yor ci yorin bu rafet war nañ kaa mën a yor ci yor bu nga xam ne nekkul sànnante xeer lay doon wala nekk ci opposition bi di wax lu la neex ci parti bi nga xam ne mooy parti au pouvoir te loolee du doxal dara dara dara dara kon nag bokk na ci li nga xam ne moom mooy avancer réew mi moom mii di président Sall wala boog président Bassirou Diomaye Faye jugaat takku taxaw bu baax a baax fa seeni règlement